di leen wax na tey nag ñoo ngi fii paasal seet si ki nga xamante ni mooy Petit Lo Petit Lo mi nga xamante ni mbokk yi mu doon bëgg dem ak ki nga xamante mooy Sokh 2 Sokh 2 di rakku ci ki nga xamante ni mooy Sokh mu mag Petit nekk ci ci doom ci ki nga xamante ni mooy Modou Lo dem nag ñoom ñaar xale yi bokk nañ ci làmb ji nga xamante ni amateur yi bokkoon nañ ci combat bi ñu doon gën a xaar ndax ne combat bi nekkoon na combat bu neex nekkoon na combat bi nga xamante ni dox na ci diggante Pikine ak Parcelles keroog Sokh bi ma koy dekk mi ko di ko wax naa lan nga wax ci Petit ak ki nga xamante ne mooy Sokh 2 gars yi nee na 2 bi la nee na ma du bi ndax làmb rek moo dox seen diggante ay xale lañ ku ci nekk dafa jël sa yoon ba ñoom ñaa ñu dajee defe naa ne combat bi combat ko dàq waaye ni mu ko waxee noonu la amee ndax nekk na komba boo xam te ne xale yi xeex nañu bëri nañu ma bàyyi Petit moom démb Sokh Sokh da koo daan jël bu leer nañ jël bu amul benn wérante ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a wéy waxtaan wi Petit Lo nuyu naa la waaw maa lay fay Ouzin ak onze bi laa bin saare ñu bisimilah rahmaani rahiim maa ngi sant yàlla bu baax jublu si nante bi di sant sama ñaari waajur di leen bëggee yéen ñaar bu baax di bëggee waa parcelle yëpp un bu vingt six mm-hmm. aussi di bëggee ñëpp ñëpp ñëpp eh, di jégalu tamit ñëpp bu baax maa ngi jégalu ñëpp quoi eh. combat bi nag ko waajee woon parce que ñu gis combat bi euh, durée bi yàggul mais ñu ci bay euh, soq kenn xamul woon fan la nekk kenn xamul woon lan la doon liggéey naka nga doon waajee combat bi. Ah, maa ngi doon waaj ak sama <coughs> comme ni ma doon waajee yeneen combat yi rek. Mhm. Mhm. ni ma doon waajee yeneen combat yi rek laa ko maa ngi doon xëy dem géej su ma jógee géej dem saal bu ngoonee ma dem contact. maa ngi doon waaj bu baax a baax a baax. Mhm. Euh, amoo woon amoo woon amoo problème parce que dañoo gis seen face to face bi est-ce que bu combat bi taxaw léegi yaa ngi tegante ngeen bët. non non teguñ teguñ bët. mais loolu nekk ci benn problème aussi tamit loolu amu ci benn problème. ndax ma gis ko maa ngi doon préparé ni mu war a préparé ma ko gis tamit maa mu a préparé. ñu gis combat bi dafa taxaw. Mhm. koo jot kenn mënu koo gis mu làqatu di entraîné. Mhm. démb bi mu ñëw stade ñëpp gis nañ poids bi nga xamante ni nii sook yokk na ko ci diggante bi yokk poids bu bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi. bi nga ko gisee par rapport ak sooq mi nga doon gis bi nga ko gisee gisuloo ne kii dafa yokk volume ci diggante bi. non man foogoon naa sax ëpp na noonu wallaahi ndax gars yu bari dañ ma doon wax naan ma sa adversaire affaire yi noonu comme hmm. li mu demoon Maroc quoi ñu bari man foogoon naa sax ëpp na noonu wallaahi. Hmm. Hmm. mais mooy loolu loolu moom du ci dara quoi. mais nag ñu ci bay nee nañu euh, soo soq dala gën a xaw a sàcc diis tuuti ñu ci bàyyi loolu lañu wax la parce que gis nañu euh, bi ngay bëreeg moom kële yi nga tànte yëpp bi nga forcé soq bousewul ñu ci bay nee nañ soq est ce que nekkul li mu doon làqatu peut-être loolu la doon bañ nga xam ko moo tax mu doon laaxatu doon doon sàcc du yokk poids ba bi mu ñëwee dem loolu bokk na ci li ko li ko li ko gën a enjeu ci làmb ji démb. non non wax dëgg wallaahi man nag loolu defuma ci dara quoi. diis na wala diis na loolu. fe ah man boo ci man ci biir combat bi feeñul ci man quoi ah ci biir combat bi ndax tenté naa action mais kele bi ma tante pour mu réussir mooy bi ma koy bi ma koy dóor ans ci côté saako yi boobu ñu dem ci suuf après arbitre woowaat ñu ñu bëriwaat ma daw song ko mu daan mais ñu ci bàyyi de nañu euh, xeex bi doon na la avance mais dañoo gis nga déclenché benn ñaar mu laaw nga taxaw bëgg ko song dama doon daw xeex bi wala. non daw xeex bi non daw mu xeex bi sax ndax moom genre warewul xeex boo xam te ne war tax war na tax may daw xeex ci moom quoi. te dóor ma tamit dóor boobu tamit war a mën a tax may daw xeex ci moom. dañoo dañoo gis bi nga sànnee benn ñaar dafa laaw kuu bu daal dafa laaw kuu bu baax. Mhm. gaa yi yuuxu taxaw téye sa bopp commencé daw bu kutoo kut bëgg koo jàpp. non non ba mu laayu kuu bi dalul dama daw dóor ko direct bi muy laa fekk na ma génnaat. amaana sax man maa bëriwul luñ ma bëriloo rek mais sant yàlla defet moo ñëw rek quoi ndax bis defet moom sa waay bu ñëwee loo def da ngay ñàkk defet moo ñëw rek. mais dañoo gis bi ngeen jàppante dañoo gis bi ngeen jàppante mhm. mu pompe ci suuf uppercut benn ñaar ba ñett xaw ma ñeent boog bi mu bi mu defee loolu nga nga nga nga forcé nga forcé bëre bi moment boobu ku yi mu doon dóor dafa dal wala. non même pas sax dalul woon noonu na ma mais genre dalul dal woon te ndey def effet quoi eh, mais mi ngi doon door mais mooy loolu. mais bi ngay daw bi ngay bi ngay bi ngay daw di yor mu la yokk di la fàq nga ñoo xaw ma. di la tuur yoru ma de. Ah, mais mais ah. mais dañoo gis dañoo gis song bi dafa sori trop. parce que bi ngay song moom bi ngay ñëw bi ma koy bi ma koy mm-hmm. jege naa ko ndax dama dama dox paat dóor ko ci kaw daw song ko. Mm-hmm. Eh, mais bi ma ko songee dafa jàpp sama ngemu côté bi. Eh, loolu moom daan ko ci ngem ri la xëcc foofu la xëcc. après mooy mais est ce que oyofoo tamit est ce que oyofoo tamit parce que tamit nga boo ñu xoolee kële yi nga tànte mu risque ko ak bi nga daw di ñëw bi mu lay jàpp di la di la di la di la yokku tamit. non oyof feeñu si genre xam nga kañ la kañ la oyof doon feeñ. Mm-hmm. Eh, bu fekkoon dafa ñëw imposé ma jàpp ma waaw gis nañ gis nañ benn moment mu na zongale te mhm. mhm. après mu bàyyiwaat bu fekkoon daf ma imposé daan ma ci la ñuy wax ay oyof wala ëpp loolu ci lañ koy mën a wax mais imposé wu ma man maa ko song man maa def erreur daanu mooy loolu ah mais ñu ci bàyyi nee nag sa combat mhm. saa booy ñàkk wala saa booy daan ñu ci bàyyi nee nañu Petit Lo dafay yàkkamti combat am dafa yàkkamti trop. ah loolu moom dëgg la moom wallaahi man ñëpp loolu lañ wax benn wax bu leen may wax mais teeyal quoi teeyal teeyal boo teeyee sa benn morom boo xam ne mën na la imposer mu daan la daanoo daan sa bopp. léegi ñëpp wax la teeyal nga ñëw par après combat bi. ay eh, billaahi mais mooy loolu defate ñëw rek man moom loolu laa ko jàppee damaa jàpp ne defate ñëw rek. wala nga jàppoon ne yaa ko dangay ñëw taxañ teg ne dem xool leneen. waaw loolu laa jàpp man sama combat yëpp noonu laa koy bëree man bu arbitre siffle rek damay jàpp ne kii dama ko war a jëlee. est-ce que xamoon nga dayoo combat ni mu toll parce que fan yi ñoo ñoo gisoon diggante ki nga xamante euh, rek Pokola coow li bay ñëw diggante euh, nu mu tuddeeti Ama Baldé Sa Touba coow li gën a bay Sa Touba de ma ñëw wàcc wàcc combat bi est-ce que xamoon nga ampleur combat bi loo amoon. waaw bilaay ñoom ñëpp maa ngi leen di jégalu wallaahi maa ngi leen di jégalu genre déggoo ma li ñu ma bëriloo rek laa bëriwul quoi. Eh, amaana dañ ma conseillé woon dëgg su ma ko bëri woon eh, làmb ji mun na mun na bañ a demee quoi bi ngay dem mais eh, newoon nañ ma jël sa temps quoi booy song moom na leer nañ ñu quoi bàyyi ko moom ba mu jóg di ñëw nga doog a nga doog a song moom dafa taxaw fi mu taxaw mën na boo ko fekk song ko loolu da nga jàpp ne daal da nga da nga da nga yàkkamti affaire yi ba mu ëpp waaw ah, dama ko yàkkamti ba mu ëpp loolu moom dëgg la dama ko yàkkamti mais maa ngi jégaluwaat ñëpp bu baax a baax maa ngi tuub ñëpp quoi wallaahi ndax dafa dafa metti quoi Eh, amaana ñëpp yéene woon nañu victoire mais kenn kenn kenn du bëgg victoire ba gën ma ko bëgg man muy dugg ci géew gis nañu waa passé ni ñu génnee jàppale bi nga ñibbisee ba toog. Hmm. xalaat ne combat bi jeex na te da ngaa ñàkk loo yëg. Eh, métti na trop quoi métti na trop eh, métti na trop quoi mais sant yàlla tamit quoi ndax tamit man li mu waroon def lépp def naa ko wax dëgg entraîné naa dem naa ñàllu mais dernière décision bi tamit yàlla moo ko yor. Hmm. te amaana yàlla moo moo ko may xaj ma quoi dama dama ciy sant yàlla bu baax a baax di ñaan li des ci suñu carrière yàlla defal ñu ci sutura. lan ngay wax Sokh. ah maa ngi koy félicité bu baax ndax moom champion la jàmbaar la bëri nañ mu daan maa ngi koy félicité di ko ñaanal ndam li yàlla na ko ji quoi mu continuer yoonam ak jàmm. Mhm. tey da ngay da ngay da ngay da ngay noppalu da ngay da ngay relax tuuti quoi. ma expliqué relax amul kay. tey ñëw dem tey tey tey jii nii nga bëgg démb daanu. Ah, ak tool tey nga bëgg a xëy dem entraînement. Hmm, tey la lëndi moo tax. Hmm. waaw dem entraînement rek kay. nekkaat samay entraînement. fi mu toll nii ku la àndaloon ku la àndaloon avance nga jël wala nga toog xaar ba saison amee man xale laa amul lu may xaar. nii nii ku bëggoon ah, combat Petit Lo bu ko neexee na andi avance bi nga bu ñëwee dañ koy jël amul lu may la. ah boo boo yaa ngi bëri di daan ñii ngi mu toll nii fan nga fan nga teg sa bët. te eh, man moom est mënu ma wax jox ma kii mënu ma jox ma kii waaw mais kuñ ma jox nañ ma jox sama morom rek su ma joxee sama morom moom mooy loolu. Hmm. du loolu la moom kon kon doo def ni gars yi def boo daanoo xool grand ñu xaw la may hmm. chance. Hmm. nañ ma jox sama morom rek mu bëri quoi. Mm. Eh, di jégaluwaat ñëpp di jégalu waa Parcelles Unité 26 maa ngi jégalu ñëpp ñëpp di jégalu waa Unité 10 eh, ay ñoom Thier Thier ñoom Ado xam nga eh, ñoom booy booy Indochine xam nga ñoom maa leen di jégalu bu baax a baax a baax ndax booy yëpp booy dañoo génne seen xaalis jabar ay t-shirt xam nga mm-hmm. waaw jënd bi ñu dem xam mu demee noonu maa leen di jégalu ñoom ñëpp ñëpp waaw sama booy tamit dañ ci sonn ñoom Papa ñoom Sadio Thier xam nga Youssou Gueye xam nga Abdou Faye ñoojoor Abdou Faye moom tamit aw ma fayam quoi dañ na ci combat bi ay coono yu métti mu déplacé wu jógee ñoojoor ba fii. mooy hmm. loolu ak Lamine moom mu ngi dëkk ba Ndangaan moom tamit Ndangaan la déplacé wu ñëw ba fii. ak gars ak ñeneen ak ñeneen sama ñëpp gars yi daj ci ay coono bu baax père ba tamit defaral ñu ay yu hmm. ba pare yëkkati yu bari wallaahi may ñu. Hmm. Eh, maa ngi leen jégalu ñoom ñëpp wallaahi maa ngi tuub bu baax di jégalu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. mooy loolu ak Papa Sow tamit xam nga jàpp na si bu baax et sama papa Modou tamit maa ngi koy jégalu di jégalu ñëpp sama papa Modou Lo jàpp na ci combat bi bu baax a baax moom tamit. Mhm. bu ñu nee suba la bi rek daf ma woo jox ma ay conseil na ma teeyal lu làmb ji laaj rek nga def ko boo demee nga jël sa temps quoi bu nekk di parax paraxee mooy loolu. ñëpp benn conseil la muy bu boo demee nga jël sa temps mais mooy loolu man maa def erreur quoi maa def erreur maa jum maa daanu maa ngi jégalu ñëpp. Mhm. gis nga mbokk yi noonu la demee tey Petit Lo laa seet si woon parce que gis nañ démb combat bi ni mu ko bëree. wane nañu jom fulla ak fayda soo ko tamit di ko encouragé di ko wax ne xale la et puis làmba nga ci kanamam na gën a góorgóorlu ndax euh, fépp foo xamante ni ñoo ngi fay séntu ay champion defe naa ne bu góorgóorloo gëm boppam war na faa mën a àgg di ko ñaanal ndam li yàlla na ko jig làmbam ubbeeku na xale yaa ngi ci kanamam na gën a góorgóorlu lu ko waaye wax lu dul entraîneur waxuloo ko daal di ko jaajëfal bu baax a baax na euh, kontaan naa ci yow bu baax. waaw di la jaajëfal bu baax di la ñaanal jàmm di leen ko ñaanal yéen ñëpp ah. jaajëf di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci Wassare Lamb jaa ngeen jëf